wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sëñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen mastaw li nga xam ne ñoo ko bokk mu dal ci suñu kaw ñun ñëpp tey ji nag ñu ñëw fi ànd ak suñu ay xarit suñu ay partenaire di ay chinois nekk fii ci senegal di fi daan seen doole di employé ay sénégalais jàpp ne bu dara xewee ci askan wi dañu leen a war a taxawu loolu moo waral seen tànk yi tey jii ñu ñëw fii seet si waa Touba ca kanam commission sociale bi ak Touba ci kanam mën naa ne présidence gi ngir jox leen seen ndimbal ak euh, jàppale leen ak euh, dugal seen loxo ci taxawu Touba ci kanam ni ñuy taxawoo population bu Touba. ñu ànd fi ak monsieur Zang nga xam ne moo jiite Tayfor mooy usine bi defar karo yi fii di employé ay sénégalais yu bëri. ak euh, monsieur Taw nga xam ne mo jité soft care moy euh, usine bobu di defar couche yi ñuy employé tamit ay sénégalais bi li xewé Touba nak biñ ci waxtané ñun ñu ne dañu bëgg ñu and ak ñom ñëw fi ci dëkk bu sel bi ah, joxé seen dimbal feeñal seen yéné mais tamit am yéné jappalé leen ci li ñu jëm ci suñu kanam di commencer cadeau yi nak xeyna fofu sax lañu ñu waroon di jaale population Touba bi yépp di jël njaal mi di tek ci seen loxo. pour ngeen jàllaleel ñu ko ci xalif général de Mourides mu joxal ñu ko population Touba bi yëpp. di ko wax ne suñu xol ak suñu xel yëpp mi ngi ci sinistre yi ñi ngi bokk ak ñoom li leen dal di bokk ak ñoom tiis wi waaye di xam ne wéetuñu ci aussi ndax fu ñu geesoo danañ gis population sénégalaise gis nañ nit ñi taxawaay bi ñu ci am ñoom ñi tamit loolu moo leen motiver ba tax ñu ñëw fi tey jii ngir indi seen ndimbal euh, ci population bi mais nag di ko teg ci loxo commission sociale bu Touba ca kanam parce que dañoo seetlu seen liggéey ñuy ab soññee bu rëy rëy rëy ñun nag bu fekkente ne dañoo bokk ci kër gi ñu jaarale mbir mi suñu loxo dañ ciy sant bu baax a baax ndax lii woote liggéeyu wuy si liggéeyub Serigne Touba la te ci lañ leen gis ngeen di ci xëy di ci gontu kon bu ay jàmbur jóge ca àll ba te wut si rek indi leen fi ñu dem ba xalaat ne ñoom dañ cee war a dugal seen loxo bu ñu ci woowee dañ ciy sawar lool Mbàkke kon ñi ngi lay ñi ngi eh, sàkkuwaat ñaan di sàkku ngeen ñaanal leen ñoom it ba lii nga xam ne moom la ñuy wut ci senegal te di fi jël ay doomi Sénégal yi ñu ci liggéey di am lu ñu yóbbu seen kër mu barkeel lool te lu mel nii yàlla na fi gëj te di leen xamal ne nag fas nañoo yéenee ànd yéen ci di leen jàppale ngir jàppale population Sénégal parce que bu ma fàttali ko foog naa slogan wu Touba ca kanam mooy liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi te suñu borom moom foog naa ak njabootam mooy doomi aadama yi te nit ku ko taxawlu njabootam mu taxaw la kon Mbàkke ñi ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm Euh, di am mbégte ci teewaay bi ñu teew fii ngir daral suñu bokk yi nga xam ne ni ñoo ngi bàyyi ko ndakaaru jaare ci soxna maam aw mii nga xam ne kenn la ci biir liggéey bi muy soxna maam aw Mbakke mu sëñ Cheikh Assou Faye mu sëñ Modou Habib mu sëñ mu am Thierno Ibra Fati doon kenn ci liggéey bi euh, yàlla boole kook sëñ Mor Sorong jàmbaar loolu moom tamit ci liggéey Touba ci kanam bii euh, teew fi nag ci turu commission sociale bu Touba ci kanam waaye nag teew fi ci turu Touba ci kanam gépp ci teewaayu suñu Abdou Fatah Gueye vice président bi nga xam ne mooy eh, vice président Touba ci kanam eh, tey jii nag ñu teewoon fi ànd ak monsieur Taw ak monsieur Sang bàyyi ko ci eh, bërëbu liggéeyukaay yi nga xam ne yu ràññeeku la soxna maam awa tudd na ko léegi muy Taïfor ak Softcare ñi nga xam ne dañuy def ay jumtukaay yoo xam ne li ëpp ci Sénégalais yi danañ ko faral di jëfandikoo ñoom itam ñi nga xamee ni noonu la ñëpp di def rek ci dëkk bi lañ nekk waaye ay doomu aadama lañ te xam nañ tamit tiis wu dal ci aw askan euh, euh, la ca gën a néew mooy dem wu askan woowee moo waral nag tey jii ñu ñëwoon fi teewoon fi ngir wu askanu tubaab yi nga xam ne nii sunu boroom nattu yi nga xam ne nii moom lay teg ci jaamam bi te ci nattu yi la sunu borom nattu moom ñaar rek lay doon comme ni ko sëñ Moussa ko waxee woon ndax yàlla kat xarit ba xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy baal teeloon nañu wax tamit wala nablu wannakum bi shay'in min al xawfi wal juhu wa min al amwali wal anfusi wa samaraat waaye basiri saabirina allazina isa asabatuhum musiba xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mamar mii moom itam mu def ci ab taxawaay bu am solo ak mboolem ñu àndal ñëpp ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal bu baax a baax a baax te ñaan eh, seen liggéey boobu ngeen di liggéey te di ko def ci réew mi sunu borom gën koo barkeel ndax eh, bépp société boo xam ne dafa samp ci am réew day am war war war war yoo xam ne dalay war ca la nga fay amee nga di ko delloowaat ci askan wa askan wi yëpp nag bu ñu xoolee yaakaar naa ñi dëkkee Touba amul kenn ku leen yéen a gën a yelloo ci yooyu ñu joxe moo waraloon bi Touba ci kanam naka jekk moom yëngu-yëngu yi ñuy def yëpp mi ngi ci woon mooy jamono ju nekk ñoo ngi taxawu nit ñi ci ay jumtukaay wàllu écranage public yaakaar naa li ñu jot a def ci dëkk bi toll na ci 19000 lampadaires 19000 so 19060 lampadaire ñaar fukki junni lampadaire yu manqué ñeent fukk def nañ ko ci dëkk bi. bu ngeen génnee tamit fii ñu leen di dalal lu ëpp 4 euh, kilomètres ci ay ay ay reboisement muy garab yi nga xam ne moo jàkkaarloo ñu Touba ji Kanam moo ko fi def. ba ci kër gi ñu nekk chantier yi ngeen gis ci biir muy bowaas beeg yooyu Touba Ca Kanam mi ngi ciy dugal ay loxo loxoom ba ci assainissement bi ci wàllu sel bii ci kër Mbay Wàdd Tokkoor ba yooyu yëpp doon ndigal yoo xam ne Cheikh Mamadou Mountakha moo ko joxe woon ci dëkk bi tamit bu ngeen gisee ci biir dëkk bi da ngeen gis ay tëli yoo xam ne sax Touba Ca Kanam moo ko fi def tëli yoo xam ne sax dafa am na tëli yu ànd ak assainissement lu mel ne tëli bi nga xam ne moo nekk ndaamaatu noonu la koy yu bëree bëri bu dee ci wàllu poste santé def na ci dëkk bi lu fukki poste santé yoo xam ne nii juróom-benn yi noppi na ban commencé koo jëfandikoo mu des ñeent yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi ci te benn bi tijji woon ko ci màggal gi moom itam bam commencé koo jëfandikoo noonu la jàppee ci université bi bu ngeen fa demee da ngeen fekk bâtiment ne bâtiment bu la ñu ko doon xayma ci 800 millions ginnaaw boo xamee ni joxe woon na ab barkeelum ci tàmbali bi waaye joxe woon na ab barkeelum itam ci bu matee noonu nag lay jàppee ci façon yëpp fekkoon na nawet bi avant muy ñëw sëñ Abdou Fatah gi bi moo jiitee commission hydraulique ci tubaa ci kanam wutoon nañu ay citerne yoo xam ne doon moom lañ doon mayee ndox nit ñi ci biir dëkk bi nga xam ne nii daanaka weer wu nekk li ñuy mayee ndox ci dëkk bi léeg-léeg mu mat ñaar téeméeri kër yoo xam ne danañ def ay rotation may leen ndox am nañ tamit sous bu tudd adduction d'eau danañ dem ci quartier yi di leen jéem a wutal xëccal ay teewoo ngir ñu mën a am ndox noonu tamit lañuy jàpp ci wàllu kër yi nga xam ne ndox mi da koo nangu woon am na sous commission bu tudd wàllu wàllu googu sax ci la kër gee ñu defar fee nga xam ne li ëpp ci sinistre yi nga xam ne nii ñoom amuñu kër yu leen mën a rakaase foofu lañu leen yóbbu baatu wàllu boobu lañ jël tuddee ko kër wàllu gee kon muy ay jëf yu bari yoo xam ne Touba Ca Kanam mi ngi koy def ci dëkk bi kon nag képp koo xam ne dafay ñëw di apporter ak jàppaleem ci Touba Ca Kanam duñ man lu sant ko ginnaaw ñu leen daralee te masewu leen ci yoon bu baax a baax a baax di la santaar yow tamit soxna Mame Awa ci jëf yi ndax démb bi ñu woowee biñ lay leeral tolluwaay yeeg ak kuréel gi nga xam ne sëñ bi sos na ko te Touba ci kanam nekk ca ak euh, waa mairie bi ak Hizbut Tarqiyyah ñu koy wax junatul li mën na sama te ñuy taxaw taxaw taxaw yaay taxawaay yu mel nii ngeen ñu wax ne yéen seen barkeelu ci Touba ci kanam ngeen ko bëgg jaarale kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di ñaan suñu borom nangul leen ko te ngeen tasee ci ngërëmul sëriñ bi ak taw tawfeexam بها بجاي خير من أبى